dañu si fankante lu bare bare bare bare ñu wàññi ko mbooloo bi ñu wàññi ko waaye suñu waxee ñu naan déedéet loolu amul solo lii am na solo dafa am solo trop ndaje ñu wàññi ko xew ñu wàññi ko comme président bi nu ko waxee nañ ko doxalee noonu waaw noonu lañ ko war a doxalee waaw. jërëjëf lay advice nit ñi pour ñu def ko. Mhm. waaw jërëjëf toppoon digal waaw. man maa ngi tudd Dieynaba Dieng. Dieynaba tey luy sa fii tey. bala ñoo bala maa wax loolu maa ngi nuyu ñëpp mhm. di ziyaari nit di ñaanal jaama mhm. di wax yàlla defal ñu jaama suma rôle fii mooy dañ am benn groupe buñ fond bu ñu wax peace and stability for the Gambia so Aïssatou Henry Gomez Dabo moom moo ko form so mu invite ñu ci mu jabari ministre bi Henry Gomez so mu invite ñu ci gis ne doy nañ ko ak suñu liggéey ak ci diaspora bi ñu nekk ak liñ dee def soo ñu uyu su ko so yow ban dëkka nga jógee ñëw gambi man maa ngi jógee jamani dëkk bu ñoo wax düsseldorf waaw so uh, tey lu leen lu leen motivé right eh, tey pour def sensitisation bi si biir albert market waaw li ñu motivé moom leena rek la dañuy gambian di african ba pare di gis li nga xam ne moom moo xew ci àddina bi ñu defee woon ne China rek la am ñun ñëpp ñu toog fi di ñaanal waa China waaye yàlla mi nga xam ne moo amee balaayam di ko wërale soo ba mu agsi si suñu réew comme nag commencé na suñu réew ñu ne ñu xaaral ñu jóg ñu sensitise nit ñi loolu waral suñu taxawaay bi fii China. te da nga foog ne comme nose mask yi ak raxasu and everything mun naa prevent nit bu mu am wala mun naa stop nit bu mu am coronavirus. waaw ci la bokk because ci biir set la dañoo wax pour set especially raxasu bi dafa am important trop so soo raxasoo ah, mas bi tamit secondly pour loo xam ne nit di saxat or anything si air bi xam nga mun na la ko paas so glove yi tamit joxante loxo bi xam nga which is very important soo li ñoo def nii nekku ne dañ xam de ñun xamuñ waaye dañoo jàng bugg a jàngal nit ñi waaw ci loolu lañ nekkaat. so yow yaa ngi jógee si diaspora bi tey da nga ñëw Gambia lu tax nga choose période bi pour ñëw Gambia xam ne ne comme feebar bi it's all around. non man Gambia mooy suma réew man fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee te fii laa fekk baax itam. Mhm. so Gambien laa so dama proud pour dañoo suma dëkk at so dama ñëw nag ñu ma tombee tamit li affaire bi ñu ko doon coow bi foo mm-hmm. ba faf nag mu agsi ba fii fekk maa ngi benn tey mm-hmm. so yaa ngi gis ne ñu ngi nii sax ñun ñu waroon a ñibbi waaye mën ñoo dem waaye loolu yëpp ndogali leen yàlla la daal mm-hmm. te ñu nangul ko ko tam bu baax a baax a baax a baax Henry Gomez moom mi def initiative bii nii yëpp moom mi moom group bi foom ko di ci génnee alelam di ci def lu nekk so Aysatu xale la de waaye xale boo xam ne la macha allah macha allah yal na ko yàlla la fal cat moom moo jëkkaram man li ma gis luy yóbbu Gambia kanam soo gisee ñu ñu toppa seen gannaaw te ñoo ko mag fuuf waaye lu dafa bëgg a réewam bëgg a lu yóbbu kanam moo tax te ñun Gambien nañ te ñun Gambien rek lañ am so moo tax ñu tamit ñëw ñu taxaw ci gannaawam jàppale ko di ko dooleel te fu ñu oo muy xaaju guddi muy bëccëg gis nga ko tey weekend la dañ door fii tey Banjul so ëllëg ñu ngee dem Kanifing ba biir Banjul ba koy na yëpp am nañ fa suñ nit ñi tamit chairman yi so comme man maay as ca lady bi nekk Dusseldorf comme ni mu la ko waxee sànga soo moo tax nag ñun tam fu mu jóg rek dañoo jóg du tim bi du lii rek de dañ ko divide waaye tey lañ ko start waaye yal na ko yàlla defal jàmm yal na ko yàlla may ndam ci lii ndax lii ku bugg sa réew rek a koy def waaw. maa ngi jégalu so so Amy Amy Amy uh, groupe bi. pour pour ni nit ñi pour coronavirus bi wala da ngeen am yeneen yeneen aim. non non no non non suñu aim and objects lu dul yi li def ko tombé because tey jii sax baax na li nga ma laaj loolu tey ji lañ waroon a def suñu lancin bi. Mhm. mooy pour wane suñ boppa ak wax lan a tax ñun ñu jóg. onasaan nga waaye jaama pexem yàlla ak dogalam. soo lii mu ñëw soo ñu bañ nag ne loolu tamit comme ñun tam dañ bëggoon a def leneen te lii ñëw ñun dañoo dañ ne pour peace and stability ñun suñu la ñoo taxawal. soo suñu réew suñ ci luñ mën a nekk rek ñun dañ cey dugal suñu loxo looloo suñu eh, looloo waral ñu jóg nii waaye loolu bu suñu aim ak object soo liñ omba yëpp bés buñ ko feccee su suñu loncin bi nit ñi dinañ xam lan la tax ñu jóg soo seetee tam bu yaaku nii sax si affaire yi three years jot na five years ak eh, peace and stability ñoom ñoo indiwaat jaama ci biir réew mi ñoom ñoo fa nekkoon ñoo doon eh, lifin jàppa nit ñi ñoo doon dimbale nit ñi di xam nga mobiliser di sensitiser nit ñi di def pour jaama dellu si waat ci réew mi ba gars yi am ci ndam mu di leen gërëm tam ci loolu tim bu xarañ la nag bu lii rek lii taxu ñoo jóg lii daf ci bokk rek ñuy wone suñ bopp rek ne lu ñu wax ci lu lu lu xew ci Gambia rek ñun dañ cee taxaw ay Aysatu foomut lii pour ne pour lii la déedéet lii dafa lii tey la moom li mu foom démb la man dama ñëw sax fekk groupe bi man mi wax yow dama ñëw fekk mu foom lii di ci def jéego yu bari am na projet yu bari am na workshop yu bari macha allah waaye bés bu mu ko ficcee rek comme ni ma la ko waxee rek nit ñi dinañ xam lan a tax mu jóg waaw. so ban message wala ban advice nga am si ñu la nekk di seetaan ak Gambien si. waaw maa ngi sànni benn message bu gaafa rek comme ñu xamuñ dañ ñu xamal pour ñu xamale soo ñun ñun ñu bàyyi suñu ñu seet suñu dëkkuwaay yi. especially xale yi ñu bàyyi xale yi xel torop bu ñëwee liñ fi doon joxe ni di distribute omo yeeg col de sawel yeeg masque yeeg hand glove yi mooy pour su ñëwee rek ñu raxasu bala ñu njëkk a def dara nañ raxas seen loxo yi bem set suñu raxasee seen loxo yi ba set ñu fompale fompa fomp loolu leneen lu ñoo war a def rek ñu def ko ak ku toilet or anything else tam man fil naa ne da nga war a sensitiser sa bopp sax before lii agsi so ñun loolu lañ taxaw fii di ñaax ba pare Aysatu dooleel ñu tamit ñu am ay jumtuwaay ñu indi ko fii di ko jox nit ñi nga xam ne rek koo xam ne ñëw nga ci bunti marché bi rek fekka nga ñu fi gis nga liñ fi indi woon bari na torop moto bam fees lañ fi teg ñu leen koo jox xam nga pour am am na ñoo xam ne sax ñun xam nañu am nañ ko waaye booy def rek da ngaa def pour ñëpp doo pick choose so loolu moo tax ñu ñëw taanal yi ba pare taana marché bu mag bi bi nga xam ne moom mooy li nga xam ne Adama Barrow suñ président bi am stop na activités yi yeneen ak yeneen waaye marché bi still ni ñaa ngi dugg di génn so ñu ngi fil ne tamit fii tamit baax na ñu ñëw ñu sensitise lañ tuuti tamit ñu xaw sa jàng te nit ñi kontaan nañ tam torop foog naa ok loolu moo taxoon nit um, cuus taamu fi nga jégal ma nag yaa ngi ma def loo xam ne man mënu ma wax <laughs> waaye foog ma jéem because dañ ma ko sas yow mm-hmm, yow yo ajaratu biñ tey jaal Banjul ajaratu luy sa rôle bi tey man dama si exécutif yi peace and stability Gambia laa bokk. Mhm. peace and stability Gambia ñun ñooy ñi nga xam ne ñooy indi jàmma di advocate for jàmma ak dal ak tey ci réew mi tey nag dañ ñëw fii pour def sensitisation mhm. because dañ waroon a def suñu launching waaye yàlla def launching bi antu dig feebar bi mhm. coronavirus coronavirus bi nag ñu ngi advice nit ñi ne nañ ko jël very serious buñ ko jël light feebar bu yàlla indi la te yàlla rek moo ko mën a teggi ñu ngi ñaan waaye ñu ngi advice ñu itam ñu dal ñu wàññi mbooloo gu bari gi ñu wàññi jaxasoo gi ak ñu dema ñëw bi ñu wàññi ko ñu dal fi mu nekk nii school baa ngi nii tëj na xale yaa ngi si kër gi na parents yëpp teg seen xale yi si kër gi pare ñuy def ndox mu ndox mu tànga bi ak orda sawel yi ak omo yi ñi di raxasu feebar bi dafa nekk feebar boo xam ne jaaxal na aduna bi yëpp waaye jaaxal bu yàlla ñu bàyyi ko si loxo yàlla peace and stability nag ñun liñ def tey luñ war a def la parce que soo bokkee ci réew dafa am sa association bu mel nii ñu ko wax peace and stability Gambia su lii xewee nga waroon a def ah, loñ ci defuloo loñ ci soo defee lii tam ba tey baax na pour ñu xam ñu ngay nuyu nag président his excellence yi président Adama baro di nuyu à excellence yi vice président ay Adja Aïssatou Touré docteur Aïssatou Touré di nuyu cabinet members yëpp di nuyu alkaalo yi chief yi priest ak képp koo xam ne rek yaa ngi ci dëkk bi nekk kilifa ñu ngi jël suñu ñaari loxo di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ngeen ñu itam suñ co-founder bi Aïssatou Mrs Aïssatou Henry Gomez mi nga xam ne moo waral lii nit bu baax la initiative bi moo ko jël bi li xewee ba léegi toogu taxaw lim ci def moom jëkkëram honorable Henry Gomez liñ ci def rek si xaalis yàlla rek ko xam waaye ñu ngi leen a ñaanal fan bu gudda ak wér gu yaram ci lépp li ñoo yëngu yal na ko yàlla fulandal ñaanal Christian stability members yëpp di wax ne tam lii am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne lii amul amul lii lu am la de te ñu ngi wax ne amul Gambia waaye kenn moo ko am Gambia waaye na si kenn kooku feebar bi nag fi mu nekk nii yan la ko yàlla saafaraal daxa ko mu dem adduna bi yëpp a ngi jaxasoo fi mu nekk nii business yëpp ngi close down dara doxul waaye lii yàlla rek a ci dara ñu ngi yàlla buur ya Allah ya rahman ya rahim ya mujibu ya xudus ya fukki tur yooyu juróom ñeneen alliko fa yàlla ñu ngi ñaan feebar yi yow yaa ñu ko mën a teggi su fekkee ne ñun sax umma bi dafa am lu ñu defoon ba tax feebar bi nga teg ko suñ ko ñu ngi sukko ci suuf yàlla di la ñaan dañu jéggal bàkkaar yi yëpp daxal ñu feebar bi daxal ñu tiis parce que bitim réew a ngi jaaxle ku nekk ne xam na Amérique mooy su boppam mm-hmm. waaye fi mu ne Amérique ñoom sax feebar bi jaaxal nañ ñi ñaa ngi nekk ci kër yi nit ñi liggéeyatuñ business lii baaxut li albala la waaye albala bi yal na ko fi yàlla emane ñu wax ne ne nit ñi nag am ay ay garab ñoo wax comme jinjar bi nga jël ko nga les ko dogat dogat ko def ko si ndox mu tànga nga naan ko baax na. so si sa own point of view foog nga ne jinja boobu wala face mask bi mun naa prévenir pour bu mu am coronavirus. ah loolu de xam nga nit ki moom fagaru rek dañoo fagaru rek ndax dina ko faj ndax du ko faj loolu dafa des si yàlla waaye ndegeen wax nañ loolu ñun nañ ko def rek seet parce que tam. am nga bu njëkk ba suñ mag yi suñ feebaraan garab yi amutoon dañ daan jël ni donc ne baal dogal ko xobi niin tri xobi niin tri bi suñ ko baxalee ñu ne nga suuroo ko steam boobuy dem di egg si yow daf la daan wiral te boobu jamono boobu chloroquine yi la garab yi amut waaye léegi suñ demee ba am garab yooyu ñu ngi fi am wonjo bi tam ñu ne baax na waaye buñ ci def sukur bu bari ñu koo baxal rek mu tànga ñuy naan di naan ndox mu tànga di naan jinjar bu tànga bi ak yeneen a yeneen daal yoo xam ne local treatment la xëy na yàlla mun na defar ñu téye suñu kurus yi mm-hmm. te zikr la laa ilaha illallah astaghfirullah subhanallah salatul fatiha mm-hmm. ak lu mun dog bu nit mun a def rek mm-hmm. nit baax ñaa ngi koo def ñu def ko so ban message nga am right now si ñu la nekk di seetaan ak waajur yu xamante ne right now bëgguñ seen seen doom yi génn sa even si bitig bi duñ da bëgg a ñu génn sa ban advice ak ban message nga am pour gaay maa joxe mooy nag nit ñi jënd lekk bu doy lekk su amee si biir kër gi cash power bi am ñu teg xale yi si bi ba pare si little corners yi am suñ kër ñu def fa suñ ndox euh, orda sawel ak omo te xale yi ñu téye leen school bi soo gisee ñooy nañ tëj dañoo bañ xale yi di booloo waaye school baa ngi tëj waaye daa ngay gis ne foo dem rek gis xale yaa ngi cimbing cambang cimbing cambang loolu tam baaxu ci réew mi parce que xale bi su demee virus bi ken xamul do xam bala nga xamne la suma dom daf ko am yàlla traité ko fekk mbir mi agana fu xamne do ko meuna safara way nañ ti xale ci kër gi ñun waajur tam ñu tok xew yi la fi ne ñu surtout jigéen yi xew yi bari na bu mbegi bari na ndenday sabar ye yoy yem ñu tegagum ko jublu ci yàlla rek be yàlla safara yalla nako yalla safara dara jay nabi Mustafa barke ma maakaamaani barke alhamdu salli ala sayyidina amin jere jërëjëf way liñ def dara ñu doxantu ni rek ñu ñu ñu waxtaan ak suñu benn sista bi fi sista na nga def tur bi. Aji Suwaare boo jàng. Aji tey luy sa rôle bi fii tey. man maa ngi bokk peace and stability. Mhm. man maay assistant PRO peace and stability. so lan moo leen motivé tey pour génn pour sensitize nit ñi tey ah, si Albert Market. dañ gis ne ñun we are calling for peace. and peace dafa contain lu bare bëri bëri bëri. foog nañ ne war nañoo contribuer itam suñu tuuti quota bi ñu am. ñu bokk ko ak Gambien ci nit li am ni dafa jaaxal ñu bari niñ ci mëna def rek moy li suñu omo yek suñu ordre sawé ni ñu jël ko omo bi ak ordre sawel bi ñëw di ciblé di won xalé ni ñoo raxaso ak mag ni mhm. di jox leen ko free of charge mhm. waaw so da nga fogné né face mask yi ak laaji galik and gingery da nga xamne ne la fa mën prévenir bu am coronavirus. loolu dal dess ci loxo yalla way liñ gëm man li ma gëm mooy ñu delluwaat si suñu bop si yalla ñaan yalla way fagaru tam ñu ne mo gën faju wa nga defar luñ wax ne nga def ko def ko rek baax way suñ sañon tamit ñu ñaan delu wat ci yalla rek wa man dal loolu rek la ci mëna wax. so ban message nga am right now pour ñu la nekk di sétane ak Gambians. ok li ma njëkk a am mooy ñu ngi gërëm his excellency président Adama Barrow di gërëm vice président di gërëm cabinet ministres yëpp gërëm entire Gambien because tey moom li ñu nii lu rafet la te ñoom ñoo dooleel ci loolu ñu ngi ko gërëm ci jaama bi nga xam ne moo am ci réew mi di ko ñaanal yàlla dooleel ko may ko kàttan may ko wér di ñaan Gambien si lii nañ ko fulal lii du yëfi caaxaan du jaaxal China jaaxal Amérique war naa jaaxal Gambia bu ndaw bi so buñ ko jëlee caaxaan ak fo loolu daal lañ message boobu lañ amoon. jërëjëf waay tur bi. Abdoulaye Mendy. Abdoulaye so tey ñu gis ne peace and stability for Gambia dañ ñëw Albert Market pour sensitize nit ñi yow luy sa rôle si si association bi. waaw CSO bi ah, man maay seen propaganda secretary bi maanaam ci executive bi laa bokk te lu jëm ci affaire yi media bi am soo on tam ci ah, sensitisation campagne bi ñu nekk man maay ko so lan moo leen motivate right now because gis ne ni ñu bari right now ñu ngi indoor lan moo leen motivate pour génn tey ñoo sensitize ñi. waaw xam nga turi uh, suñ uh, groupe bi rek would uh, speak for itself mooy peace and stability boo déggee peace and stability mooy jàmm ak salaam ci biir réew mi jàmm ak salaam nag mënut a am ci biir réew bi nga xam ne nag askan gaa ngi jaaxle askan gaa ngi tiit. fokk ñun ñi nga xamne ñun ñoy doomi réew mi understand li nga xamne moy mooy njëriñu ak salaam ñun ñoo mëna a gëna dalal xelu nit ñi ndax lii jangoro la comme bëpp doom bëpp jangoro bi nga xamne mu ci adina bi tey naam dëgg la tital na ñëpp ak whatsoever way ay doomi adama ñoo wara taxaw seen morom yi té niñ ko mëna défé rek moy pour ñu wàlluwante lenn la moy niñ ko défé tam moy pour seet naka lañ mëna a di gëna sélal set bi tax ñu ne ñun dëgg la right now de ku nekk sa bopp nga tal waaye dinañu jaral parce que lu ñuy woote mooy réew mi la te réew mi moo ñu ñor nañ am na ñenn ñi nga xam ne tey amaana am nañ wala xamuñ soo ñun buñ jógee waxtaan ak ñoom xamal leen yee leen tam ci njëriñ bi nga xam ne lii seet lii am na ko ci biir feebar bi yaakaar nañ ne dina leen dimbale looloo waral nag ñu jóg te tey tam mu tombé ak bés bi nga xam ne moo nekkoon bés bi ñu bëggoon a lonc euh, lii di suñ groupe bi yàlla def ak xew-xew bi itam ñu ne comme dañ ko bëggoon a lonc pour yëgal àddina euh, taxawaayu groupe bi kon nag nañ jël li xew nii itam ñu yëngu ci pour njëriñ ci nit ñi ndax nit ñi ñooñu tax a jóg nose mask yi ak specs yi ak gloves yi nii nii sol mun naa prevent nit bu mu am coronavirus bi. waaw COVID waaw ci euh, domaine boobu nag euh, it will be euh, very very technical technical and scientific xëy na man suma xam ak àggut foofu or whatsoever. Mhm. waaye liñ gën a xam daal mooy ci lu jëm ci wàllu set whether coronavirus la or du coronavirus set dafa important ci whatsoever surtout ci jamono juñ toll nii kon nag bu fekkee coronavirus bi nga xam ne ñu ne virus la bi transmis diggante nit ak nit yaakaar nañ ne set gi dina ci am cër ju bari bim ci lee naam dëgg la xëy na du ko mun a génne hundred percent or whatsoever waaye fagaru moo gën faju yi kon nag loolu la ñuy wax nii pour ñu ne ñu fagaru moo gën balaa ñu lii di dal pour ñu ko faj waaye ñu yaakaar tam ne daal ci fagaru boobu li ci gën a bokk nag mooy set gi te set gi tam bokk na ci mooy li ñuy def nii tam so ban message nga am pour Gambians yi ñu la nekk di seetaan right now ak viewers yi yëpp ban message wala ban advice nga am pour gars yi waaw advice bi ma am rek mooy pour ñu xam ne daal lu nekk ci doomu aadama muy mbégte wala lu safaanoo ak mbégte yépp nañ fàttaliku delloo xel ci yàlla ñu xam ne lii nattu la wala boog sax dogal la bi nga xam ne yàlla ñu ko teg am nañ fi ay kilifa aada ay kilifa diine nañ delluwaat suñu xel ci yàlla tuub jéggalu ko ñaan ko amaana mun nañoo teggil yii nii bu dul loolu it ñun ci suñuy bopp war nañ change suñuy attitude tam war nañoo change suñuy attitude in the sense bi nga xam ne am na yu bari nit ki euh, naam dina doon sax dogal waaye daf dee doon yi nga xam ne yaa koy sabab lul sa boppa tey lu ci mel ni coronavirus bi ni yàlla tere tere ko Gambia moo nekk bokk na ci ay réew yu mujj yi ci jot waaye tey réew mi ndax pripia nañ woon pour lu mel nii wala lu ëpp lii bu amé lolou fakk ñu ko laaj suñu bop parce que rew mu toll ni Gambia bu fekkee comme li pandémique bi nga xamné adina yépp la wóor mu war ñoo jaaxal tu an extrême bi nga xamné tay ji mën nañu wax ne Gambia manut bopam parce que bu mënoon bopam sax li nga xamné lañu xalaat moy fi nekk ni moy Gambia war naa mën yor bopam fi lek pandémique bi di jé ndax lolou mënal nañ ko suñu bop dédé loolu ñu ñu ko teg mooy ñun ci suñ bopp ñoo ko tegal suñ bopp parce que liñ gëm mooy bu dul ci bitim réew rek di ñun kon nag ñun lu ñu am ci biir réew mi fii lañ war a njëriñoo ba nga xam ni lu ñoo njëriñoo lu nekk wala lu ñoo dundee lu nekk mu jógee ci suñu biir réew di nga gis ne lu mënti xew biti réew wala àddina wërngal kër du ñu sonal parce que yaakaaree wuñ ko ci kenn waaye boo yaakaaree ci nit ëllëg si biir kooku bu ko tiis dalee yow it sa mbir dina xala jaa jaxasoo tuuti loolu nag bokk na ci lu ñoo oote ci Gambien si ñu gis ne lu ñu moom am na ñi ko soxla mënuñ koo am let's try to develop ourselves and see the best way we can to sustain ourselves. Thank you. Yeah. yeah. So this is the first stage, right? Yes, this is the first stage. So how many nyato minutes nga fong need muna rahasu? Uh, then you need al uh, uh, 20 uh, seconds. One or 20 minutes 5 minutes interval minde ɗi nga def ok Bye. Bye. So of me, you can be assured that 99% bacteria shifa ne ka gena ne. Wow, gena na. Mm-hmm. Tetam tek kitam moy uh, for the next let's say 5 or 10 minutes mm-hmm. ko am bacteria yi nga xam ne dina stay ci suma ndox ba ma ñu. Mm-hmm. So li dañ ne ni def frequently. Waxul la comme boo jógee benn yoon rek nga def. Am na yenn da nga nekk ci dara ni bu yàggee rek nga bàyyi ko dem ñu raxasaat sa loxo dellu si waat parce que bacteria dara la li nga xam ne doo ko mun a gis fu mu nekk yow xamoo xëy fi ñoo waxee nii li ñoo laal ni mun ci moom kon nag raxas bi always daal dafa prevent nit ki rek pour am waaye waxuñ la ne tam boo raxasoo rek boo ko am waaye yaakaar nañ ne dina ko musal waaw waaw loolu it would be uh, very very technical loolu laa la wax mooy uh, expertise lay laaj mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo yore mbiru gu yaram boobu waaye lu ñoo njorte rek mooy nit xam na lu set ak lu tilim yow boo gisee lu set di nga xam ne lii set na sa loxo bu demee ba nga xam ne yow fiir nga ne mu ngi tuuti wala mu ngi tilim wala am na loo ci fiir rek war nga koo mun a raxasaat boo ko raxasee léegi nii nga dem laal leneen dellu sil nga raxasaat waaw waaye yaakaaruma ne time bi am na ci boobu importance set gi daal noo ko mun a defee rek moo gën a am importance rap Alibaba, Alabai, Soldier, Killer, ACE, Bundy. You know what I'm saying? Always down with Gambian Talents Promotion, holding it down with the whole entire team. Kuboka Sigetegi, Nancy Melmi, Baye Kenmo Mudekebe.